Fall, je suis le président national du euh, mouvement des élèves et étudiants franco-arabes du Sénégal euh, MEFAS. Euh, comme ni nga ko le bi concours bi génn na publié, publier mais il bi publié à notre grande surprise gis nañ ci 125 places yi yi yi seulement il y a que trois places disponibles pour les arabophones moom nombre de ne nombre de tous les la boo xam ne trop motax ñun arabophone yi wala boobu ñun franco arabophone à travers notre structure LEMEFAS ñoo ngi dénonce acte boobu ndax jëf la joo xam ne si day nuru xeebeel ci réew mu mel ni Sénégal ak ni fi islam mel ak arab ni mu fi amee doole des millions de citoyens sénégalais yi wax langue arabe concours bu mel ni ENA ak ni mu amee dayo ak ñëpp di ko xaar ñu doon xaar au moins sax ne kat euh, cette année bii dinañ jël lu ëpp lañ jëloon daaw wala dinañ jël lu ëpp lañ jëloo concours bi pa bële passé bu 2020 bi bi ña gën koo yées muy ñett ci ci place muy nombre boo xew boo xam ne ci xeeb nañ ko ci jamono joo xam ne si ñu ngi wax insertion de diplômés dans la langue arabe euh, concours bi ñun dafa waroon nekk euh, premier exemple euh, mu premier pas pour jëmmal seen projet boobu wala muy pour jëmmal seen bëgg-bëgg boobu bi nga xam ne si mooy dëgg-dëgg maximiser les chances pour les arabophones mais tel n'est pas le cas mu yëf yoo xam ne si MEEFAS en tant que structure arabophone franco-arabophone ñu ngi koy dénoncer di wax ne état bi na xoolaat politique de répartition bi muy def ci concours yëpp na tous les concours yi nga xam ne dafa nekk ci biir réew mi muy concours bu mën a doon nañ si gën a yaatal place arabophone yi ndax arab kenn ëmpalegóol ne langue la boo xam ne si langue bu am solo la arab dafa jaxasoo suñu culture dafa jaxasoo suñu aada dafa jaxasoo ak suñu cosaan français bii dafay ñëw mais arab moo fa jiitu nekkoon fi léegi nag boobu loolu lañ bëgg état bi xam na ko gën ci bàyyi bàyyi bàyyi xelam ci lépp loo xam ne si nag lu place ñi ñi am diplôme français la war nañ ko war a mën a yaatal pour ñu am diplôme arabe bañ ca gis seen bopp man see jëriñu comme ñëpp ndax réew mi ñëpp ko bokk ñëpp ay Sénégal lañ yàgg nañ ko wax fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ fi lañ yaroo ñun ñoo choisir jàng arabe ñuy choisir jàng leneen mais ñu bokk réew mi ko réew mi wul am xàjj ak seen ci lépp loo xam ne si politique gouvernement bi la lépp loo xam ne jëm si administration la moo xam si enseignement moo éducation mën a doon dañ si jël place yu doy doy doy maximiser les chances des arabophones partout loolu la ñuy joxe. bu ko lii tey suñu taxawaay bi taxawaayu alerte la. ak taxawaayu tamit yee yeete ak àggale jëf yi fa mu war àgg waaye it nit do fu nga jëm doo ko wax waaye lii premier jéego la pour wan ñi fi ne ñi yor yëf yi ne leen dëgg-dëgg nañ bàyyi xel ci arabophone ci lépp